moom mi nga xam ni bi mu dikkee ni aji boo daay laay ñu wuy si ko morndal géej gi mm. daf ne ku juddu sant la daf ne ku dëkk rek sant laay maxtaar yàlla wallaay kër bàyyi laay amul géwél mm-hmm. waxuñu fa tariixa mm-hmm. waxuñu fa askan mm-hmm. waxuñu fa xeet waxuñu fa waaso ay jullit lañu yoo xam ni ay jullit jullit yàlla tibaa xam lañu te gisal li ko yàlla fee mm. doo gis ku taxaw ci mbedd yalwaan ñu ni si taalibe Seydina Limaamu la amut du ñu fa jaay cigarette amul baar amul xeex amul musique amul dëggi sabar lii tax nit baax bi bàyyi laay sàkkoo li ab jullit war a mel yàlla da ko ni fexe nga ba nit jullit war a mel ndax innamal mu'minina ixwatu bi nga xam ne moom la yàlla suñu borom wax te wax ni wal xat karam naa bànnee bandi géwél wala bandi tëgg wala bandi uude wala bandi géer yàlla waxu ko waxu ko Seydina Limaam mu ne soyandal yàlla suñu borom ci loolu moo tax suñu borom ni ko dinaa la teral waaye dinaa teral sa njaboot ba foo fekk ñu nekk ci ak cet nekk ci ak laab nekk ci wàcc seen bopp nekk ci bëgg lu baax kër Seydina Limaam mu am doo gis ku taxaw ci mbedd yore këll mbaa mu yor wattu naa mastata Seydina Limaam mu sëriñ boo gis ci àddina tàmbaleen laa dëkk vingt cinq ans amul kuy naan jàng mm-hmm. bu ñuy guddi ajjuma mm-hmm. ñu mm-hmm. ngi jàng bu ñuy feet ñu ngi jàng bu ñuy tuur ñu ngi jàng bu ñuy naqarit ñu ngi jàng ñu ngi jàng kon yal na na yàlla fayal ñu Seydina Limam mu muy kàddu yu am solo yoo xamante ne yëkkati nga ko ci euh, actualité boobu la preuve danaa la ci indil benn anecdote ñëwal muy ñaan yal na yàlla yor dolli ko ay ngërëm muy bàyyi Abdoulaye Thiaw tudd na maam jaara bu sa doom tudd Serigne Abdoulaye doom Serigne Cheikh Mbacke doom tudde Alaaji Ibou Sakho doom tudde Alaaji Abdou Aziz doom tudde Maam Seyd Nourou Tall doom te boobu am na cër wallaahi am na cër ndax maamam ja moo ne maa ngi ñaan yàlla suñu boroom taalibe bu mu mën a doon boo dikkee ak fu doom aadama jógee boo dikkee ci sama dëkk bi dëkk bi jig la ba dootoo bëgg a dellu fa nga dëkk moo tax kuy nit ci kaw Sénégal saa bu la soxla demee deux heures mbokk mu nekk Ndakaaru mbaa taalibe bu fi nekk rek la sa xel di daj. wallaay dëgg la taalibe bi mën a dagg bu ma gàcc taalibe buy joxe milliard addiyee Ndakaaru nga ko liggéeyee. Mhm. taalibe buy joxe étage Ndakaaru nga ko liggéeyee. wallaay dëgg la taalibe buy joxe kër Ndakaaru nga ko liggéeyee. Mhm.